suratu Shu'ara saaru way way la Makkiya ñu tege Makka lay dara Shu'ara daa fi ah su ma demee ñun yaa tax ñu ñaar téeméer la wa sab'una juróom-ñaar waaye sama ñaar fukki at yi ci kaale bismillah sunu wax sama ci bisu buur rahmaani kiraay ci wàllu ñaar ñu jaar ñaar yi kiraay ci wàllu ñaar ñaar taa siin miin taa siin miin laa alam mumraadi ñu ne taa mooy Tuuba siin sidratu muntaha waaw miin Muhammad wala taa waaw mooy sigira jaami yàlla yi jëm ci yàlla siin mooy seen dox ba jëm ci yàlla waaw miin waaw mooy xewla yàlla gi ci ñoom wala taa waaw mooy sori Sinaa siin waaw mooy Iskandariya waaw miin mooy Makka waaw yooyu yëpp dañ ko wax waaye ay taaw yu dara yoo xam ne laa alam mumraadi moo ci gën a wedde sin te yire aaya aaya ci kitaaw yi aaya alquran la laa laka ndaxte da yow Muhammad baa xawoon ajara yi nga nattaka bopp ba ala ak borom ngi bu ñeeti li moom ñee di way gëm yonent ku xeroon la ci waaw jubam mbindeef yi ba su leen waaree ñu dëdd waaw xolam dafay naqadi lool yàlla ne ko ndax da ngay rey sa bopp ngir li nga xam ne ñi gëmuñ la dina sa dem soom nanu mun a sinu wàcce aleen ci ñoom ne samay bi ci jaasamaan aaya tan kaasio sa sallat te mujj an aqum ay dox seen xaar ñee di way toroxlu laa ñeen ko de su neexoon yàlla mu wàcce kaasio boo xam ne ñëpp dañu nangoo nangoondoo benn yoon waaye na mu loolu de bu ma yaatu yi gisati leen ñu dikkirina alquran mais rahman ci dafa aji yaram de mu def ci suñ sole sof ak wàccam bu laa kaanoon waaye bu nekk nañu moo dañu leen jooy dëkk man walis ko de waxat ko solo rek dinañu fa sayaat yi xam naa dikkati leen mbaa maa kaanoon ko bay lañ mu jëf lañu nekkoon def sax yow na bii bi de awalam yaraw ndax dañoo gisul te la dañu gisul danoon mbat naa dam bëri naa mbat naa doon soxal si ak gisul ñun kulli taw bi yëpp xeet kër yi mu wute ak rafet de dina fi daal di gërëm nakaay bi nekk rek di leen laajaatal teg ko yu teg les quatre vingt buur boobaa kan nekkul ak solo gën ñu bëri seen moom ñu ne gëm de baax na ba ci xaaral ay yoon yoon way xam nga naka baram sa la woo moom arrangé bi moom mooy aji nag ci buuram ak wax yi moom mooy aji yaram de parce que jàngatal yow Muhammad gis naa daa waxooree rabu ko baram sa Musa Musa ba nga xamee yéen ziar Musa nga jógee Madiana ñu jëm Misra ñu xaw ko caada ba am na ko jëlam nit ñu ci dikkalan am xaw ma ñu ne saaj mi nañu way tooñ xaw ma fi am ci Firawna de yàlla ne ko yónni naa la ci Firawna ala ya taqoon ndax ragal bi ñu yàlla xaala am Musa ne rabbi yow borom sama ñu yéena ko man axam dina ma ragal ñu ko ci won ñu wéy ak ma de mu ne ko su ma demee ci Firawna ne ko yàlla ma yónni du ko gëm waya bi ko sa dana tiit sadri dana sama wala am ko fale ko sa boy ci bisaan yàlla ngi sama sama xol dana ma xarit lañuy wax te itam man dama dafa mu ma wax ko at yi yónni ilaa fi jëm ci mbokk sama xaar ilaa xaaroona jëm ci xaaroona mbokk sama wala te ñaan leen ale ci man tan bu bakkaar de ba xaamu dama ragal ñàkk loolu bu ñu rayal ma de Musa tawat na ay tawat tawat na Firawna weddi ko tawat na waaw dotom nga nekk ci làmmiñam yàlla fekkil ko waaw lamiñ wa dotom nga daldi dañ mu ñaan itam yàlla yónni xaaroona mbokkam mu mu dimbale ko ci yonent bi waaw tawat na itam ne ba muy génn Madian ba muy génn Misra dafa rayoon bakkan de ragal na ne bu ñëwee Musa dana ko ray de waaxaafu dana ragal yàqturo li mu ñu rayal ma de xaala wax yàlla ne ko kàllaa ray ci ñu la de yàlla ne ko duñ la ray foofa la Musa xam na ne lu yàgg yàgg saraw na du ko ray de ko fa ba dem leen yow sa mbokk mi mbokk mi ñaanit mayeñ ko ko ñoom ñaar ñu daldi nekk ay yénoni daayaat naa andakaate sidi joom yonent de u naa na ko ñëw mos ko noonu way dégg lañu maa ko mën a yéen fati yaa jikka leen saraw na saraw na fa xoola wax leen u naa na ko nun rasul rabbika ñaari yonent ci borom sa lañ de ku ne ci ñun ab yonent la am na kam itam yëpp ab suñu yonent maanaam ànd ak ñun bani Israayil bani Israayil ñu jëm saam de jëbbal ñu suñu xeet bani Israayil ñu gàddaay ànd ak ñoom jëm saam de xaala wax Firawna ñeel Musa ne ko alamu rabbika ay yarunu la woon binaa ji sunu kër du Musa mi nga xam ne maa ko yaroon ba mu ko gisee rek amee na ko wali dem nit mu ngay gone nga nekk gone maa la doon yar ba nga fer wala bi sa sanga fat binaa ci ñun ni ma mën da ci dund sa ci ñu na ayaat ñu di ñett fukki ñett fukki at nga di ko dund ci sama kër di war war waaye Firawna di xool di di sol ko daay Firawna waa ñu la wax ba mu Firawna xam ne yaa doon sama yaa doon sama dono moo doon wari naa di mu fekkoon Firawna te waaw di am na may nekk Firawna gannaaw doo faan sa danga def faan danga jëf sa lekk jaaja faan sa jëm nga ko amula loo def lu may rey waaw kenn koo xam ne ci sama biir la bokk waaw sa yow meen kaafir naa ji nag nga jawee yoon ñett yoon sama te boobu wedd nga sama xewal moom Firawna moo gaw wala waa am te yow meen kaafir naa ji nag nga jawee yoon te booba yéefar nga woon naka man defe na ne Musa li nekk ci seen jib yëpp waaw defe na ne ci seen diine la nekkoon te Musa mos la nekk ci seen diine waaye ci wax tam defe na ne Musa yéefar la woon Musa mos la nekk yéefar xaaral wax Musa ne ko en tout cas jëf na ma ko moom jëf jëf ci seen boobale waaye te man dina bari naa ji nekk laa ca way réer ñi way réer ñi ne waa xaw way réer ñi lan lan mujj ci man de mu ne ko ba may rey kutti woo xaw ma ne yàlla du na ma tànn ba def ma di yonantal ndax xaal saa def na ko waa naa te man dina bari naa ji nekk laa ca way fàtte ñi de ba xaal saa def na ma ko waa na te man dina bari na aji nekk laa ca way réer ñi ne sama kurteñ ba dana ko rey de xaw ma woon ne sama kurteñ mu dee ba pare dama daw min kum ci yéen damaa ko sukkum ba ma ragalee leen ba waa ba te may nii ñaan ma rab yi borom sama fukk man xam-xam wa jaare ñu dem def moom ñaan mos a ñëw ci ñëw ñëw de wa ci sa loolee nee ma ci xéewal de tamu naa goog da nga ñaxe ko alee ci man ana ba ta bu nga jàmloo bani Israël bani Israël Musa ne ko wax dëgg yàlla amel naa la xéewal boo xam ne mën nga ma ko ñaxe mooy bani Israël yëpp nga def leen ay jaam man nga def ma may sa doon mus la maa def jaam boobu xéewal de waaw Musa tudd na xéewal de boobu taawi la nga baawa ci te loole neamatum xéewal la tamu naa bu ngay ñaxe ko alee ci manam ana ba ta bu nga jàmloo bani Israël bani Israël sama def gi sama mbokk yi nga def jaam loolu nga may ñaxe kon dafa wéy di xéwal de xaaral wax dëgg yàlla wa ma rabbul alamin ana fi yàlla liggéey bi xaaral daal ne ko wax ma luy yàlla liggéey bi ngay wax yàlla mi ngay wax di jëm ci moom luy yàlla laa la la lay laaj xam nga maa maa yëpp lay laaj alors Moussa ne ko rabbu samaawaati borom asamaan juróom-yaar wala rek juróom-yaar maa bay maa nekk di gëdd seen ci moom asamaan juróom-yaar ak suñu juróom-yaar laa wax de xaaral wax dëgg yàlla ne li ma naaw la woon ñaan ñu nekk ci yow ala ta sanona ajëdu tile mu dégg leen tantam li ñu dëppoole ñu ma ko laaj man ma laaj ko luy yàlla mu war ma wax luy yàlla moom mu naa ma yàlla asamaan ak suuf xaala wax Musaa ne rabbukum borom seen wa rabbu abaykum ak borom bàyyi seen daw dina yëri wa jëkk de mu ne ko ci leen moom moom seen bàyyi leen jëkkoon laa wax de xaala wax Firawna ne inna rasulakum nakam yonent seen la fi waaw wut yónnee na ko ilaykum jëm ci yéen la mañ moom ñu dul jinne la mu de mooy di yonent ka jinne ko jar li ma koy laaj tontu wul ma lu dëppoom li ma koy laaj Firawna dana xel wax ma la de xaaral wax Musaa ne rabbul mashriq borom penku wal maghrib sow waaw bay nu maa la nekk diggante seen in kuntum dem nekk ngeen fàq loolu da ngeen xelu de Musaa ne ci moom penku sow laa xaaral wax Firawna ne day sax sow laa ngeen jàpp ngay daal yàlla xayri jëm man daal yàlla na sa dana ma mujjal ak ñoom nag jëlee ci ñun tëj ña de mu ne ko soo fi indee yàlla jëm man naa la def ci kaso de sëkk bi daañu na waxut ko dina la rey ndax boobu gis na taal bi ñu musaay ba xam na ne moom ñu musaay la la kaso la ko tëkkoo ne ko naa la tëj kaso wala kaso Firaw na ko moo ko rayee moom ndax seen la woon buñ bënn ba waaw seen la woon buñ bu gudd buñ suñ ca tëj waaw dañuy daaj waaw sa dañuy daaj daaj ci sa loxoom lay yor daaj ci sa càmmoñ daaj ci sa tànkam lay yor daaj ci sa tànkam càmmoñ jël dënn weñ teg ko ci sa dënn ba noppi defal sa kàmbat teel te kenn la jox lekk ba ba ngay dee sama bi taxul nga rey mooy ma xaala wax Musaa ne ko awra jiitu ko ak léegi kenn wala bi tey ci la mu biir daal ji mu ne ko léegi naa la kaw bu jib dañ ma reyal xaala wax Firawna ne ko faati ji kenn bii ci moom ñu ko doon nekk mu ne sax dana ci way dëggal ni te ñu kaw bi gaaw Musaa da nga am na ci buntu Firawna at moo Haaruna ñu soble na waaw wax Firawna ne ko ñaara ci buntu bi la bare ñu ne yàlla la ñëw ci yow mu ne leen ma waree ràññee waaw ñu ko baax ci de faa xaada sanni Musaa faa yatawa tey daa am ci la kat yow mu soo baalu ñangoor la mu bind mu yaa ngi bidde Musaa sami xetam wa mu daal di sotteeku jaani ñangoor la wala saa tam génne yàlla dafa loxoom tey daa am ci la kat yow moom kay baaw borom ci ñeer yi naa ci ñeer way seet ñe de mu dugal loxoom waaw ci jula am génne loxoom Musaa dafa toonoon mu génn mel ni dem dem di di galoo de xaaral salaam alaykum ma lay ñaan borom aaro war te yow ñu naa saanaka Musaa mi de dafa ay rom jaba baa yu mu yaa ji kawe ci xam-xamam jaba kat mu ne leen Musaa kan ñu gis na waaye pour yi jabar la jox am ne pour pour jabar ni moom ma saam de lii du dana mu namm am yoo fa jëkk mu mu génne leen ah dëkk ngeen di tegu pour teel di ci rii ci jabaram nga lëkkati nga xam Musaa leen fàttali lépp fay jàng jabar pour bëgg na moom dina ci suñu loxo commencé à taamu na am ngeen digal ma xaaral ñu waxee ak ji ñu fekk waa xaaru mbokkam ba fax yéen ñëpp ma daa yi ci jënd yi xaasee na mboole seen yaa ko ñu dikkee leen ñu dikkee la di ko ñu saxaareen di def ko jabaraatoon ali in ku dee ali dem Musaa ci xam-xam jabar de ko dina sa boro sa si jabar yi di muy xaas yéen di muy xam des maa doon mu di wuñ xam de mooy waxtu yor yor te seen jëfëf kenn ba naka mu dayoon ko saaru taxaare waxee la taxa xeer dinaa fi ñeen nit ñi alam tum ndax yéen mun tanu na way booloo ngeen la alana wax leen lu na tabdoon alana topp saxaara sa jabar ya in kaanoon dem nekk lu ñu mu ñëwal xaalis yi ñoo ma di way noon de wala maa jaa abadi ke saara fi jabare xaaro ñu wax li Firawna ñu ne Firawna ay na la naan ndax aji nekk la ñëw na la aji na la yool in ko naan def nekk na noonu naan mun alxaalifina di way ma xaara mu ne naam waaw way na kum te nekk yéen itam ba pare dameel mu xaram yéen aji nekk ñun te ñun jage ñoon ñafi man de yéen a njëkk a dugg fi man yéen a mujj a génn de ala law ñee leen Musa Musa al ko sànni leen maa am fu ngeen mu ko na way sànni leen ko sànni leen te yati ma gisaat seen buum yi faal xaw tañ sànni ci daalawum buum seen wane fi ñoom wàcce def seen waxaaloo tañ wax deen sa ci Firawna gën dem ci taragaay Firawna inna naka nun daanaanu wa xaaliboona ñoom na ima di way nodde faal xaasa sànni Musa Musa faaraya doon wa isa am la sax ye moom ko laq fu gën a mu wan na maa yaasu kono gën a mu duur ko de foo xeetala daw saara di jabale sànni ñoom ne ñu ñëwee si jóot xaaloon wax amoon naa gëm nañu rabbi aadama ci aji moom jigéen de rabbi Musa borom Musa aadama ak aadama de wax Firawna amantum dëggal ngeen lewoo ci Musa xam la xanaa fa jëkk bu ma digale làkkum ñeeleen ngeen di gëm Musa te tagguwulee ma sax jabarkat yi jabarkat yi juróom benn téeméeri dina la ñoon yi am juróom ñaar fukk dina la ñoon yi am ay xeet ak i buum yoo xam ne bu ñu ko sànnee Musa fekku jaan ñu sànni ko lu mat mil ci lay yoram mil ci càmmoñ yëpp yi ay jaan ba Musa sànni xeetam ba rek mu wan na leen yëpp ba benn desatu ba jabar ya xam ne loolu du am jabar de waaw loolu kaw te nag yàlla ñoom itam ñu daal di jébbalu bañ jébbaloo nag Firawna daal di ëndim leen fi de te leen ngeen di jébbalu te tàggu leen ma inna wa naka moom la kabirukum ma ibtadi seen te si baba xamal ko xamal na mu leen seeroon jabar daal ne leen waa ñi plan lañ def ci ah jabar kat ñu leen ngeen gis Musa leen jàngal jabar am lu ñu leen na bërëb waaw moom la leen gagné pour bëgg waa ñu nangu sama nguur gi parce que par exemple Sadio Mane xam nañ ñoo xam ne loo xam te am na walaay dina ma dagg ay diir bu may doxal seen waa ji la bu ma ci tànk seen ñun Ibrahima ku ci muutale de ku ci nekk naa doog loxoom rek yoroo ma tànk te mu la wala wala li baax na kum dara ma salam dem ak may na mbir mu ngeen mboole xaaral ñu la day rek def bal ci ñun dinaa naka nun mun xali woon a way yéen ñun yàlla dinaa jëm ci baabu suñu rek dinaa naka nun nag maa ngi am yaakaar am yàq rek bu baax rek laa ñaan rab naa borom suñu xattaay naa ay bakkat suñu in ku naan ka nekk na awal moom yi na di njël benn way gëm ñël an ku naan ka nekk na awal moom yi na di njël benn way gëm ñël waaw xëy naa tan way ila Musa jëm ci Musa am na kam diral mbir isi la ñaanam biya bari yaa ci jaam sama de yàlla digal ñël te yàlla Musa ne na la ñaan te yóbbaale bani Israël yëpp ina kum na ka yéen topp na ñu topp kenn de te xam ne ni Firawna la leen topp fa afara te yéen yi Firawna Firawna sul na daay ci njëndi ye njëndi waaw ñu moom yëpp te fekk na junne njëndi la am wala fukki junne ñaar junne njëndi ak fukki junne ñaar ci dëkk moo doon réewu Misra affaire bi mu ñu mboole ne ma nga naa ina xaaw daay naka ñu ne na seet ci matuñ koy lañ xali loolu ñu di way néew Musa ak Bani Israël tekki wuñ dara ñu tuuti lañ juróom benn téeméeri junne juróom ñaar fukki junne rek lañ tuutal na leen ndax moom bopp xarem ba rek ñi nga xam ne su ci ne fasu mel ne fasu Firawna nga war ñooñu rek juróom ñaar téeméeri junne la ñoon de wala junne junne ñoo xam ne ku ne war waayam la war gannaaw dana junne junne ci buur bu bu nekk ana xare way ñoom naka ñoom la xaay sono way mer lool ñu la naa ci nun de ba xam tey ne mer lool ñu man yàlla de way naa naka nun la jam yoon mbooloo lan affaire ñu di way xeew de te daañu xam ne ñun mbooloo mu xeew la ñun misra faa bañ naa am buur ne tam jëne leen min janaatin yëkkute ci tool seen tool yowaroon nilu misra waxo yoon ak i teewle wa kunuuzin ak i koom wa maqaamin ak i jotaay kariim ni di way tëdd yëpp yàlla génne leen te te saa li gëm di mu naka ma solo solo rek waa xaw ma dan may ko bani Israayil bani Israayil yëpp yàlla nangu ko ñëw Firawna doon loo ko bani Israayil waa doom tañ topp leen musriqiin na nit ñi ñëwee kenn ku ne waxtu seen kat jant ba rek fekk na Firawna ngay dab Musa wala maa ko waa ba ñu sant yàlla jamaani yaari mbooloo ya ba nga xam ne mbooloo Musa ma mbooloo Firawna ma ñu sant lañ ala wa asaabu Musa xaaral ay Musa inna naka nun la mudrakoon ñu jot lañu lekk yoo sama ibnu nun moo nekk ca kanam xare ba ne ko sës naa jigéen koo xam ne waa saxaar rek ci mën a jàllale nit de ci def gannaaw kaala ibnu Yafoona yóbbanaa ne ko Firaaw ne jot nañu mbambirim xare moo xam ne dara mënu koo tëkku de Musa ne kallaa jot ñunu na maya naka aju naka laa rek man rabbi borom sama rek mu ne dañuy jot de yàlla ma yàlla nga ànd ak man de looloo ko tax a bokk ci wóor yi nga xam ne xam-xam booba waaw bañ ko ne waaw géej géej ci suñ kanam kenn mënu fee jaar Firawna ci suñ gannaaw mbamb dañ xare mu ne duñ ma jot de nit ko ñu ko ci yàlla moo ko tax a bokk ci wóor yi nga xam ne waaye sooy yi ñu xam ne moo ci wóor ma de waaw waaye naa doon wóyu ila Musa jëm ci Musa am na tamit dañ koy indi góor yi ba àgg ak yeneen faam baara jax mu góor ko kon falaxa tam xotteeku fukki yoon ak ñaar. parce que na fa nekk ku lu ku lépp ku nekk taw li nekk woon dañuy wax suñu walaay ji man de ba mu dóoree rek jax nga daal di waxu jëm kaw daal di waa xam fukki ndef de ak ñaar yoo xam ne bani Israël bi bu nekk aw si seen ndef de fañ xaw bokkut ak seen morom ak seen morom xaw de lu fa wax kon waaw ñu ñu ñu jaar wee waaw def naa fañ cee ñoom xam nga foofu rek laa xam ne ñu ne ñu ba nga xamee ne Moussa ak bani Israël dugg nañ ba toll ci digg géej ga te xam naa xare mbaa ci waaw Firawna léegi gis nga dex gi sax ci ragal na ma bi moo tax mu waaw xotteeku ñu alal ma yoon pour ma def sama jaam yi may daw ñu ne ko yoon mu ne xaw la rek fii ci Moussa ñaaw ñoom ñu daal di toog ñu jógee dëkk dem ba nga xam ne waaw ñoom ñëpp toog nañ jógee ba kenn desul gannaaw jiitu Moussa ñi dem génn nañ ba kenn desul yàlla daal di dëpp jógee ci seen kaw rek foofu lañ suuxee ñoom ñëpp Firawna nag moom duggutoon ñu ngi taxaw moom di seet ba xam ñu dañ labam dee suñu labee mu wàññeeku waaw suñu nit yéen moom soog a dugg rek ba ñu ñu labee nag mu bëgg a wàññeeku fekk mi ngi waroon aw naaru ñoo xam ne na ma xam dee fa suñu su ko rante jiw daal di fa fekk wàññeeku rek taxaw jadi di jëm nag ñaxal waaw parce que xam na ne rëm dañ leen jëm jëm jëm jëm ca wàññeeku ba mu ñëwee waaw jiw daal di ko fa waaw suufar ko jëm jëm waaw ngeen naa seen musal musa musa woon maa woon ñaan rek moom ak maa ngi nuyu mboole maa xanaa tam la la la ay ñaan ñoom ñëpp ñu suuf te ñu gërëm dina fi daal di naka ñu nekk rek góob la bala fee am ñu dem na la ay tam xalam bu ma kan waaye nekkul ab borom nga jël jël moom ñu jël jëm way na ba kana ko borom sa lawo moom ala ci mu way na ci borom ñu mu daal yërëm wadu jangal aleen ci ñoom na la Ibrahima sura Ibrahima sura Musa ngoro sura Ibrahima ngi dañi Musa Firawna rek dina ko ak ñi dem ña yàlla labal na Firawna ak ñi dem ña musal na Musa dimbali na ko loolu lay defal Muhammad itam ëllëg jàngal ko yonent yàlla Ibrahima itam if qaala ba mu waxee li abi ñeel baayam wa qawmi ak ñi tu baayam maa tax bu yoroon ngeen di jaamu xaalu ñu ne naa bu ñu jaamu asnaama ne xéeram fan la solo dana ñu ndo ci dina di way sax laa ci jaamu xéer xaala wax def Ibrahima ne al yasma'unakum ndax danañu dégg leen istadaama ba dangeen xooleen am yan aw yan bamana kum am danañu jëriñ leen aw yan borona am danañu lor leen xaaloo ñu ne la dér ma jatna te kon a barana bàyyi ñu defaroon ñu def kalaali kan kanon rek ñu bàyyi ñu defaroon ñu leen jaamu rek ñu def ñu def ci ma gën def baax xaaloo waaw Ibrahima ne afalaay kum solo ci leen ma maa ko gum la ngeen nekk taamu dana di jaamu kum yéen waa baaxagum ak mbaay seen ndax dama la di way dëkk te noonu naka ñoom addu noonu lañ ñi ñaan ma ila rabbal alamin ila la fi nekk rabbal alamin dana ma soppe yàlla ñu ñëw de man ñoom ñëpp samay noonu lañ duma leen jaamu yàlla ñu ñëw rek man moom laa jaamu rek la fi yàlla mi nga xam ne xalaqa ni bind na ma boobu mu yaa ni dana mu jubal ma wala fi yàlla mi nga xam ne woo mu yokki mu ni dana mu leyal ma wala fi ni damay nangal ma way daa ma ne ku ñëw xaq na ma koo mu ñëw fi ni dana mu saafara ma wala fi yàlla mi nga xam ne yu muy tu nii dana mu ray ma su ma ñëw yi nii topp dana mu dekkal ma de wala fi yàlla mi nga xam ne at ma dana ma yaakaar am ñax mu baala ni ñaan ma ak yaa ci bàkkaar sama yow ma di ni jëlee di ko fay ba rabbi yow bal sama ab yàlla nga may ñaan ma ko man xam-xam waaye fi yàlla nga yee defa isaani la ci yéen a déedéet wañal defal lii ñaan ma li baax na su fekkee tàggoo di aji rafet laaxir na ci waaye bul ñaan moo tax bëpp jëm yàlla ñëpp di ko tàggale wañal yi nii def ma mi war a fi jannati naa yi ma bokk ci waaye doon na aljanna yi teewal de waxtu baalan li ab yéen ñaan bàyyi sama ñoo naka moom kaan ne kon ñu am bàyyi la ci waaye yéen ñe de booba xam ne ci kéefar lay dee rek wala tax di bu gàcceel ma yow ma yumaa fona def ma def ma gàcceel ji yow ma laayam fama def ma jëriñ ci maarum jub wala ban ma bi daageen doon góor illaa man ata dara kati tan wala ba da xam ci xol tan ñu daagi mu ci mbokkaale naa fekk rek ko ka rek yéen wo ci fati da jagay ñëw ak yàlla ta jàmm ñu mu tax ñu ñaaw ak yàlla o buri fati ta jëne ak jëy mu jëy ñu xaay na ñaaw ak dañu yàlla de waxee ta ak law ñëw leen ay na ma kuntum ana la ngeen nekkoon ta mu gëna jaamu ko ñu laay lu yàlla am yeen solo ndax dañuy dimbale leen aw yéen daf leen a am dañuy ñaan bu ko seen bopp rek déedéet ba kub ci woo dafa am yéen leen yaa ci jaanama wu ñoom wala xaawoo naa koy dewee ba juróom yi ñu gisee ak way topp li ñu gisee ak ñu mën a mboole xaaral ñu wax woom te ñoom yàq si mu ne danañu xooloo fi ak ci safara te laay ñëwee yàlla suñ ko naan naka nekk kon nag ñëpp laa ñu ci réewum ci ñu ak ci gisee ñu ko yi kum ba ñu yemale leen rabbi alamin ci yàlla indi leen wa ma adallana dara wa ma adallana réere lu dul wala jub ilal mu ci mu ne dara saytaane leen fa ma lana den ñaan lu ñu saati yéen a way ramu julli ñoom yërëmante ñun kenn duñu am wala sa def ñu jaay na aw cël am ñu moom danañu cël ko fiñu bindee xamuñ benn xarit boo xam ne waa danañu cël ko fiñu bindee gis nañ booba julli ñi ñoom xarit yaa ngay ramu seen xarit ñoom waaw la sax xamuñ ko de gis nga xarit moo gën a waaw moo gën a for jege ñaare de yëfar yëpp bañ jàppee waxuñ jege ñaare de xarit rek lañ wax de wala am na la maanaam xelam di nekk ñeenu karatam ak jëm jëm ci àddina kon nag kon ban dana nekk mais moom ñooy jooy ngëm ñu de dina fi daalika naka ay nekk la jural nit doon ci kese Ibrahima laayaatam kalam wa man kan nekkul ak kalam gën ja bëri leen moom ñooy jooy ngëm de way yaram ba kana kabram solo moom ala ci suma ma day ma ci waram bay mu ay yéen te sama bee dina xaw mooy nitu mooy al mu bëri nañu yónni ñu ku ci weddi kenn weddi nga ñëpp ndax ñoo bokk lu ñu woote ci xaala ba waxee law ñee na xaw mbokk seen moom moom ala ci taxoon tra ya ragal yàlla ñu ne ka man rasulun ku ñëw ni la ma lakkum ñëwee leen am nañu ku ci ñëwoon de ba taxul aar rek lañ yàlla waxati woon ni bañ a topp ma ci wéetal yàlla de wa ma asalukum laaj ma leen alay ci jafal gi min ajrin ab yoon ila ajrin yoon sama ila rabbil alamin ndara war yàlla indi ñëw bi de ba taxul aar rek lañ yàlla waxati woon ni bañ a topp ma de ba mu ne ko mi kaw ci de la wa sallallahu alayhi wa sallam الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاته لما أغلق والخاتم لما سبق من الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وقدر عظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم maa yooyu wax ñoo ngi seeral ci yàlla noonu ne àndoo bi ñu ngi dëkkal ci ñun laaka ci yow wa tabaaka ta topp la al arsala way suufe ña rek ñoom Quraysh ñoom ñu ko yërëm ci yàlla noonu ñu wax lu mel ni la Quraysh waxoon yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ne ko duñ la gëm ndax suñu way suufe yi ñooy ñi la topp rabbkati maraan yeeg rabbkati dàll yi ñooñu ñu suufe lañ kon nag ñu teel dañuy duñ la topp rek loolu xam nga gaaral lañ ko yéen a leen dàq bu fekkee bëgg na ñoom ñu teel ñu gëm na ndax ñu suufe ñaar xaaral noomu ne wa mayel nii luy xam-xam sama bi maa kaana jël nekkoon yàlla di jëf man amuma benn xam-xam ci seen jëf di dox seen diggante seen borom ñu saabu yéen ñu saabu yéen daa rabbi ndara war na borom sama de law ta soxla doon da ngeen xam loolu kon hari ba tiree leen de wa ma ana deen man ci taari ngeen moom yi may aji dàq way gëm ñu yàlla de man du ma leen dàq de in ana deen man ila na ci da yaa ji wa ila mo ni ji ji wa de ci tay ñakkal jàngoo yi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngay ci taw lor ji nga xam ne moom la ko koy di lor waxtu wu ne yàlla nekk dina ko ci say yonent yàlla Musa Haaruna ak Firawna mu xam te ne ñooñu dañ leen doon lor mu nekk li ko ci say Ibrahima ak baayam ñu ci baayam ña ci sam ñetteel bi mu nekk li ko ci say yonent yàlla Nuun ak ñu gëm ña boobu raw yëpp nag moom mi nga xam ne am na gis nañ at nga ne juróom fukki at di leen mu xool ci yàlla ñu di ko lor de bu ko defee yonent dana ci xamee ne loolu mooy baaxal yàlla di yonent bu yàlla mos a yónni nit ñi dañuy def ñaari xaaj ñaar gëm ko ñaar weddi ko di ko lor rek ñi nga xam ne ñoo ko weddi yàlla daf leen di xaar de moom yonent bi ci boppam yàlla daf dana ko dimbale de su ko defee rek mu defee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk nañ ko xisa yonent yàlla noonu ba mu waatee ni dem ña xooleen ci yàlla dañ ko wax ne sàqal ñi la topp gis ki yi la wër ñun ñu ñu wax wax la ñoom soo leen dàqee nag ñu ñu soo ñëw topp la de mooy leen man du ma dàq bu gëm yàlla de xaaloo ñu wax ne ko lay lam santayi wala ndem dayu la yaa noowu yow noowu dine nga wax parce que na na walaay da nga nekk dina man yone ñu tan ne rek wala de ñu tëkk ko ne dañ ko rey soo bawut woote ñu ne woote jëm ci yàlla daañu la jamaay des bëgg a dee rek aw la la fàttaloon aw laay da nga nekk meel man joo mel ne te ñun saa nga ñu def soo boobu wax yi nga wax daañu ne saaga yow noonu la ko xasal xaaral mu wax rabbi yow borom sama ina aw yi naka aw yi sama te sa bopp yi rek dinañu wax gannaaw dindiwaat na waaw mu daal di leen ñaan yàlla mooy itam de ne yàlla nit ñi waat naa leen bañ nañ de of sa xatteel bay ñu digal sama o bay noonu digal seen xasan na xatteel rek xatteel sama digal seen ñaam wala ñu musal ma wala ma yaa ñaan rek man ñu ñu ci daal mu dem ñaare maa ngi ñoo gëm nag ñu musal ñoom ñu ci def yëpp xalaat leen de woo daal di ne Fane Dieng ko nu musal ko man maa aw ñaan rek moom suuf si jagaar nga almas soo ñu nga di buy xeex xeex rek indi néew yàlla daal di ko digal mu yett gaal mu yett gaal ba gaal gamat yàlla waaw digal asamaan muy taw mu digal suuf muy ball ndox ba yaare ndox ya dañu naka ko yàlla waxee jafa xamal lépp lu nekkoon ci kaw suuf lab na de kenn wut ci yaari na lu may ku nekk ca gaal yonent yàlla nu woon ko rek yonent na sama misaal maa misaalam gaalal noonu de képp ku dugg ci sama diine bi kooku mucc na képp ku dugg ci sama diine ba faatu na yem waaw kooku xalak na leen ah ñu daal di fa maa xalak maa topp na lawal baatu ca gannaaw musal seen albaati na way def na ba yàlla musalee noonu nag ña ko topp ñu teel ñëpp yàlla labal na leen ci mbugal ma de dina fi dalika naka ji nekk na ci loolu laa asan tegtal laa yaram xalam au moins kan nekkul ak soo ko jëlee seen mën ngay gëm de loolu ñëpp mën nañ ca xalame de am na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jëpp aji waare ñoo xam ne mu ngi waade ña ko topp yàlla dina leen dimbale ñu mucc ña koy wet bi seen mucc mooy xalaat rek de way la bakka naka baram solo boobu ma ala fi mooy aji nafsi kuram ay mu mooy aji yaram de ci sa ñaan teel yonent saxoon daay man yàlla di ko nettali solo yonent yu njëkk ya ndax moom mës da jàng mës da bind amutoon ci xam-xamam waaw taarix àddina dara solo xamee nag ne mu ngi waare loolu di nga xam ne mu ngi koy jànkuwante di leen yàlla digal na ko ne dina ko dimbale itam bachariya moom bachariya rek la ay tàng xolam daan naqa bi waaw ba mu soxla yàlla di ko defal moo tax yàlla di ko def nekk say yonent yi nga jëkkoon de su ko defee moom mu defee jëfe xam ne lii lii ko dal daloon naa ay kemam te ña ko doon def seen mujj mooy yàlla alal na leen ko mel ni itam dañuy yàlla ko rek te sabar la dina naa du naa almursale nañu yónni ña ñu ko xaar itam weddi woon nañu mboolem yonent yi ci ci weddi benn weddi nga ñëpp ndax ñoom ñëpp ñoo bokk duñu wax xaaral ba waxee doom ñee leen axawum bokk seen xool lool ala du taxoon tax ngeen ragal yàlla ñu ne man rasul ku ñëw daa amin ku ku ñëw la ku ñee leen te taxu la ragal yàlla waa ñoom dañu wax ñu ku ci ñëw yaari yëf lay wax ñu wéetal yàlla te ku ci nekk dana wax ne dana melal boppam dana wax ne yàlla ma yónni te yónni bu ñu xóoru laa moo tax tag ñuy tag seen bopp nit di leen dëgg kooku dara dara nekk jërë nga wutum nga ñu def ragal leen yàlla te topp leen ma ma asalakum laa ju ma leen xaale yi jabal bi nga gën a yoon ay jigéen ñi la toog ilaa la ilaa la ñu war naa ji moom jigéen ñi moom yoon yàlla la war a tax noonu da ngeen tabax bi ku leen rey ngeen yëpp suul aayatan mandarga aayatan tabax tax ba sama da ngeen fontu moo seen aada mooy teew tund bu nekk ñu leen fa tabax soor ci tëndee ndox xañ leen di romb ngeen di leen fontoo ay jàpp masaana ay déer daala ko mboolee daala ankaan ak si yàlla mi nga xam ne ama dëkk bu xewal na mu leen dima taala mu ne kala ngeen xam ko ragal leen yàlla mi nga xam ne moo leen jox xewal ngeen xam xam ngeen ko ma xam ko dana ko firi nag ama dëkkum xewal na mu leen dima maa ngi kër o wari naa doomi góor wajana fi nekk tool waaye wala naa ci seen xel yàlla moo leen may teewal yi nga xam ne yéen a ngi ci teew digg kër yi ak doomi góor yi leen yàlla may ak tool yi nga xam ne moom la leen yàlla may ak teew la ñuy daw ci tool yi ñu ñaan ak man ak xaafu na ma ragal aleykum ci yéen sawa yow ñu ko def def ak suñu guddi aji mag rek yàlla mi leen jox teewal yooyu dafa bëggoon su ngeen ko jëriñoo ba noppi ngeen sant ko jaamu ko rek teew ngeen ko rek waaye su fekkee yàlla ni defu leen loolu xanaa mooy ngeen ñu ma leen digal ragal naa bëgg dina wàcc ci yéen déedéet xaaral ñu wax ne waaw man ak ñi amoon rek am na émission bi avant sa waade nga am na kàttan am na première waade dina ca way waade ñu rek dina ko eh hoos bu sonn ak waade ñun sax waade sax bañ a waade am ci am ci ñun képp lu mën a am rek ñun dina doon jamono yi baax foofu yàlla na fi ne la xeebar yi ci àddina ne waade ak ñàkk a waade am ci ñoom salaamu alayhim an sa taw mu am nañ ci surum laa yooyu noonu yàlla na ne emoon na ci ñoom nga waat nee na nga bañ a bañ a waat duñ gëm ñoom waxal nañ ko seen bopp far ña saxoon naa waat saa noonu kàddu gi la waxee ji na amoon na ci ñun nga waat ñoom ñu bañ a waat ñun ñu naan ko duñ gëm moo tax ca àllaaxira yàlla bugal leen ca safara lakk leen ca safara ne leen isbiroo aw laa tasbiroo salaamun aleykum su ngeen xewoo muñ su ngeen xewoo bañ a muñ mooy am ci yéen di ngeen génn ci mbugal bi mukk loolu mooy payam salaamun aleykum antartam am nañ sisirum laa yëg ñoom waxal nañ seen bopp ba nga xamee ne ñoom safara daje nañ ne nañ jàngoon ñun ñëpp di jooy waaw suñ jooy junne at yàlla xëy na danañu yërëm de fii ñuy jooy yañ doon jooy caa dina ngir ragal yàlla rek la leen yàlla yërëm de ñu jàngoo di jooy di jooy di jooy junne at jëriñu dara ñu ne nañ muñ fii ñu ñu am yëpp muñ lañ fa jëlee nañ muñ ñu dellu muñ ci junne at waaw jëriñu dara ñoo wax ñoo waxal seen bopp ne sawaale naa waa jafe-jafe am sabar naa maa naa am may fi ñu ne. amoon na ci ñun ñu mu ñëpp ñu bañ a muñ waaw loolu dégg ci mu ngi rek loolu mooy xeer sama sama na wa sam lam takku mi wa ni rek ina sa je je alquran ñu ragal bu ga di ragal lo bu na la ta ina sa de ñu la ragal ñu ragal lo yow hoot da ko ko la ina la na re maam je te rek na re maam je te rek ga dañu di ko tere di ñu waaw yàlla yéen ñu la waaw ñu ñu ñu ma ko ñu ñu ko te parce que boobu dañu leen di ko baalag naam sama rek leen ñu weddi ba yàlla aar ak leen ca ngelaw la rek dina fi daal di ka naka ji nekk rek dina la laajal tekkal yi tekkal ñu ngi teg buur laajal xalam ñu nekk ci seen gannaaw ba maa kaan waaye ñu ak solo ñu ko ñu ñu ñu ñu dañ la ba nak baam sa no mo ala di ko mo daal nak ñu waram ay mo daal di am ñu weddi ba bañ ko wedde ñu leen da ngeen alako ñu ne ñu yàlla yàlla ñu yàlla pour ñu doole man ak sa suñu naa ko watal ñun suñu ëpp doole ñoom ku ca ku ci ne tax ku ca gudd taxawaayam danga mat téeméeri xasab ci seeni xasab ku ca gàtt danga mat juróom benn fukki xasab ci seeni xasab ku ci mer guddi di bañ di sànni ci guddi dara ñu sànni de ñu naan ñun ana suñu ëpp doole rek ñu bëggal ñun yàlla ne wax lu ñu mënal dara yàlla xewal ñun nag ñun ñun dëgg mu gën de ñu ne ah ñu ñu tawal si rek la foofu ñu leen jëleen ñu lu mbugal la rek mbugal suñu ngelaw la loo xam ne bu ñu yore moo leen di àll rek ñu ne ngelaw ñun yàlla mën nañu suuf sax ngelaw sa ngelaw la di jëlee nag ñu seen seen jëlee ñu wëcc woon waaw di di naaw ca kaw jaww ji naa ah naa ah ñu ngelaw kat ba wëccu danañu mën a dara ñu ne ku nekk na gas sax ba ci jëm bi rek nga xam te ne sa ba ngelaw la di mën dara ñu def loolu rek ngelaw la ñëw rek bu di leen ñoom ñëpp. waaw loolu yëpp du ñu mel ni boppu boppuñ ko am rek suñ bëri woon yëpp ngelaw rek la yàlla xaaral rek ñooñu jël nañ sama rek su fekk juróomi ak sa sabab rek ñoo sàmmoo du sàmmoo daal moo tax ñu ñëw ña ku sàmmoo dañuy sàmm dañoo wedd yonent yàlla rek su ci wedd kenn wedd nga ñëpp ci xaaral ba waxee law ñu leen axoo mbokk seen saaliyoon saaliyoon xalaat sa xol dara ngeen ragal yàlla ñi naka man rasul ku ñu yónni daal ak ku ñu yónni amiin ku ñu yónni te taxul laa ragal yàlla wax yàlla te ngeen topp moom ba maa xam kum laa ni mooy naa lay ji defal gi ñu naan dina ko yor dina ji dina yor loolu yàlla la yàlla la yàlla la yàlla ak sutura ko nag yàlla defal leen ji ma aaroon ak seen ak dina ji ñu am ñoo nit mu ngeen di woy wóolu mbugal gën a defe nag teew ji leen yàlla jox da ngeen ci sax rek menn mbugal du wàcc ci yéen te ngeen di weddi yàlla ci janaat ñu ci tool wala naa ci sew de wa soroone naa ci mbay wa nax ne tandama xalwaa nañ nga xam ndax xam ma ci nooy la nga xam ne yéen a ngi lakk tandama joo xam ne dafa nooy wa tam ni tolo da ngeen di yàq leen jibaari ci doj doo tëri néeg fari yéen a mbir mu ngeen di way ñaw ngeen di fari yéen a mbir mu ngeen di way réylu ngeen di yàq di ji doj ay néeg ay dëkkuwaay su ngoo su sedd jotee ñu dugg ci pax yi nga di ji doj yi waaw duñ yëg sedd su pax boo ñëwee nag ñu dem ci joor ga waaw dëkk fa bu ne teewul boobu ngeen nekk rek ñu am na léegi fari yi na mooy duñ jàng am nañ jàng faari yi na nit mu ngeen di way ñaw ci def ay néeg ci biir dëkk yi ba taxu laa rek leen yàlla waa coono da ngeen topp ma de wala ci coow ngeen topp am nañ ko ci na ñu ngi leen way yàq ñax mu de def nañ am ci dañ yàq dara gisul ci dalal ko ñu ñëw ñu dem yàlla tey di dem yàlla wala ci yoon ak yeneen ci de xaaral ñu wax ne dina ma am sama yow saalihu ñoom saxaari ak nekk jaw ñu yàq ñax te am kan bi nga wax rek yow jigéen la jàpp ñu ngi wax yëpp da nga am kan rek maanaam tamit yow yaa la doon naan doomu aadama ñu naa ñu di kam suñu ñu daal di rëy waa lool daal nga doon lu may doomu aadama nekk ñu rek parce que kenn daa di kaa di pour dem nekk ñoom ñoo saa rek dana jëlee dëgg ne su fekkee yàlla la yónni indi ñu kaa bi ñu xamee ne yàlla la yónni rek xaaral mu wax ne as yi de naa as yu gërëm ndamu laa ñu yàlla ko sirbu ci wala comme ñu yàlla leen sirbu ndamu ci def maa doon bu mu xam ne ñu ne ko eh saa yu gàttalal sa wax duñ la gëm mu tuuti te gënu laa maa xam ne matu wëssin jëlee wala defoon nañ la loolu mën daal saa yu ñaan bañ la daal di matu wëssin jëlee wala jëlee ba juddu doom ja juddu dox ja mooy leen jëlee daan yi mooy seen culture. bu tawee seen réew yëpp yan burooti mooy naan yëpp yéen ngeen jënd boo déggee moom itam mu jënd yéen ngeen root de bët bu set dana taxaw ci dëkk bu nekk ñu ro ñu ñorot dafa doyal liñ soxla ci ci meew te te meew ma du set bu dee saa dafa yàlla gaagoo yéen ji ne jënd moom yàlla la lu yàgg yàgg nag bu leen ko lor bu leen ko gaaral dara lu ñaaw ngeen ko laalee kaf da ngeen ala bu ndax jënd moom yàlla la wala tamit bu leen defal ko bi sooy njëriñ ñaaw te yaa ko def mboj dina jàppale na taw yow mu leen def affaire mu daal di màgg rek waaw xarala waaw sañ sax jërëm nga waxuma ñu daal jërëm nga waaye ñoom ñu ne nañ rey jërëm ñu sax bu daal ñu saay te tamit yaa yoroon ñëw fa rek ci ci ndawam ñu ne ko ñu dee jërëm yoroon ci biir lañ bëggoon ko ñu ko reyal mu ne loolu man maa ko reyal daal di sax jaaseel sax jërëm nga rek ñu rey ko. comme comme ko faru saam ceeb ba gërëm saam bu nekk bu gërëm loolu béykat yi ñu ngi leen di yàlla xaaral ne ko gërëm ñu nga waxoon ne buñ ko lor magam lor fab nañ ko wala fab nañ ko te doo nañ ko ku ne fab na saam yooyu bu gërëm mu ne leen lu ngeen gis ci gërëm nga ba ngeen ko fatee ñu ne ko ñaax na ñetti baat mu ne ñetti fan ngeen def jaaj na baas booba te ñu mujj naa di dina yooyu rek de danaa bëri gërëm ñu doon fatee gërëm ak yàlla de baas booba te jàpp naa saam mu ne ko gën a mu ne leen gannaaw ñetti fan ngeen aar ko àllarba lañ ko def àllarba ñu ne ko luy mandarga mu ne boo lëggee jaar taw bi yéen yëpp ku ci nekk dafay xonq coy yi mel ni deret dañuy dafa jiwoo deret bu gannaaw lëggee yéen yëpp da ngeen di doomandoom ba ca topp yéen yëpp da ngeen di ñuul kub ngeen gisee loolu rek jaxal ngeen ci àddina ñu xëy ku gis sama rek ne ko xanaa da nga jiwoo deret mu ne yaa ma gën a xonq fuuf yooyu la ñoom ñëpp ñu ngi mandoom te gannaaw suba sa ñoom ñëpp ñu ñuul fukk rek ñu daal ñu ne saa yu gën wax la jële kon nag naka lañ war a defee ñu ne lépp la jëndee ay tàngaayam tàng boppam rek ñu daal di xëy rek jàngoo su seen déngale ba jibi ñoo xaatileen rek ñoom ñëpp ñu ñu dee ba jeex rek ñu ala ko xaati jubli rek la yàlla ala ka ñu ne ni boppam taal ñu ne fi baal ci la gaa ñu nekk na ci loole waaye tam xalam moo kan waaye nekk na sëru ñu ko defee moom yéen ak yéen gëm day na rafet na sa borom taw da woon moom ala ci moom rek ñu wax rek moom rek ñu ne loolu dem nañ dem ala sa juróom benn weer sama rek dina xam ko ci loolu am ko ñu yéen ci ala loolu tam ñu sa ñëwet ñu ñëw ci rek maanaam rek nañ loolu ci rek kenn nga di nga ñëpp xaala ba waxee loolu ñaa leen lool ne leen xaqoo mbokk seen lootul lool alaata taxaw naa du ngeen ragal yàlla ñu nekk man rasulun ku ñëwee alaaka mu ñëwee naa ñu gudd gudd wóor de te taxaw naa ragal yàlla waaye soo leen da ngeen topp ma bu ma asalukum laa jëmale naa leen ko jëmale naa yoon nga jëlee def yoon soo yaa la yaa la dara war aji moom du ngeen de ataatu na da ngeen di jël sukuraan ak góor ñoom yàlla alam yéen suñu njëriñ yéen ngeen di gisee laal góor ci dugub ñoo ko jëkk mooy yàlla ci suuf wata soro na fa ngeen di bay maa xalaat la dina ko laajte mu ne leen rabbukum borom seen dina ko laajte mu tëjee ay jabar seen ba ñu leen yàlla digal ci jigéen ñi dañu leen ngeen dem di laal góor ci dugub wala day am tamit xaw ma nu mu gën a xaaral ñu koy jënd yàlla jënd yàlla am rek xaaral ñu ne lay lam sa day wala ay def dayira yaa loolu si yow lool te takkoon na ma da nga nekk mais mu war a ñëw ci ñuy gën a ñële ñu ko suñu dëkk bi ku fi nekk di jëm ay laal góor ci dugub ba nga ñu taxawal yow daal daa ñu la gën a def xaaral wax nga def de ñu ne ka man ñoom xaali na ak naka la waaye bañ na yaa ngi tudd jëf seen def mooy man maa bañ seen jëf yi bu leen neexee bu leen naqaree ñu tëpp ko. ñu ne ak yow borom sama yàlla nga musal ma ba ak yàlla musal ma maa yàlla musal ma ñu kon nag jay naa suñu musal ko waa àll ñu ne ma may na mbir ñu mbal daa joo tam la def ko borom jabaram waaye la sax mais xaalis naa ji nag la mu jabar defee jëmugal ma def amoon na jabar yoo xam ne moom yëfër la moom ba yëfëree xaaral ko xaaral ko xaaral def su ma damar naa topp naa la laa xam ne nee na ne waaye am na dañ taw a dem ci ñoom ak am na ab taw yàlla dafa taw ay dëkk ñu xam ne ñu jóge ca safara parce que kon na masalu mu gën na taw bi ñu waaj ñu bañ de saa tey boobu taw ka bon ay dëkk yu bàyyi ko ci jaanoo waaw moo leen taw aussi bu dalee ci sa digg bopp waaw wàcc ci sa dubur de waaw nga dal di farane alaxira inna fi sax kana ka nekk na ci loolu laayatan dakkan laayatan xalam wa ma kaana nekkul ak solo mu gën nga bëri leen moom ñu ne dooy gëm de way nga rabba kana ka waroon sa doom moom alal si moom yaa ñu ray ñu ray yéen te tey juróom ñaareel képp rawe dinaa saabu nekk dañ leen gon ba waa Mariana yi kan la dina ñu leen tee al musal ñu leen ñu te xaaral waxee la mu ñeleen soñ bu soñ waxu kan ba moom ndax bokku doon ak ñoom alaaka taxawal ndax ragal leen yàlla nii naka man rasul kun ngeen yàlla kum ña leen amee mu gudd gudd loolu de taxaw ndax ragal leen yàlla waaye tamit da ngeen topp ma commencé lu kum laaj mën naa leen ci jàppal bi ma jëlee ak yoon dinaa jëlee ak yoon sama yàlla yàlla moom la yow ak moom bi léegi de xaw foo ma doon leen moom suñu tartan lañ doon leen ay yaxantu kat yoo xam ne ñu defee ka natt di jaay ak jënd mu ne leen aw foo ma doon leen alkaalam natt su ngeen di natt ngeen ni waaw nit ñi na ngeen ko natt bu ma def dañ laa def suñu natt ñu jëlee ci nit ñi ñu natt ko ba mu tuuru rëpp boo xam ne ñu natt di jox nit ñi nag ñu wàññi ko mbët mësal ko mu ne ma ma leen natt bi de wala da ko bu leen nekk neen mos li na te way wàññi ne waaw peese ñaan ngi de wa si wa peese leen def ko saasi ci man la xalaatu fàq wala ay jub ngeen peese waaw ci peese bu jub wala ko façon bu leen wàññi naasa nit ñi ak yaa mu seen yére bu leen wàññi kenn a xam de loolu fàcc la ñuy peese jëme ci nit ñi waaw ñu wàññi ko ñuy peese jëmale ci seen bopp nag waaw ñu yàq ko de la ca daleeku waaw ñu tudde ko ba gis fekk xaram la waaw li jaamu la de waaw ñu gën a métti loo ñu gën a tax mbugal ci àllaaxira waaw peese ñu fàcc ci peese ci la bokk rek waaw moo tax ñu ciy peese yàlla koy waaw waaw ci ne oo muy peese daay man gis nga kuy peese waaw ñu muy doxalee pooba ñii lay def waaw ñii lay def muy peese te ñii la ñuy peese loo bind allah boobu bas baa ngi lay wax allah allah ragal yàlla ragal yàlla wala tax sax bu leen yàq bu leen yàq suuf rek gisul dina nit ngeen di way yàq bu leen yàq suuf wa tax war a leen def yàlla mi nga xam ne xarala bu bind mu leen war di bind saa mbooloo ma la way na ngeen di way jëf ragal leen yàlla ci leen bind te bind bi di leen jëkkoon xaaloo ñu wax ne innama anta naka yow cooy bu dina ma sax ay nekk nga ca ñun daa yàq ngeen seen xel de yow dañ laa jabar ba san xel yàq wala jigéen la jàpp waaw am na seen yow. yow nit rek nga ne ñun fooy mën a nekk yonent yàlla way naxul nu ko naka dax nu jor la leneen kaasi leen kaway nam ñe rek yàlla yónni wu la kan nit rek nga ne ñun dangaa bëgg kan rek bëgg ñu topp la yow nga nekk suñuy topp ñun ñu toppe ta akir daale nga xale naa ci suñu xale naa ci suñu kaw ci sa san dot ci san dot ñu ne samaay ci asamaan rek su fekkee yonent yàlla nga daane asamaan si gisuñ kaw xaala mu arab ya baram sama arab ma yoo xam ne maa tamaam la leen jëf ko bu leen yàlla xam seen jëf moo leen di fay itam fay gum leen mën a fay moo ko xam ne ba kër sa boobu tañ yàqi ko waaw xam doon sa jàpp leen ata mu doo koy jëf mbugalam defet niir waye ñu yàqi ko mbugalam defet niir waa ci ñoom de ñoom ñu leen yàlla alage da leen yàlla bëgg alag dafa ubbi kalantar ci jaanam mu tas leen tàngaay boo xam ne ñoom ñetti fan yàlla boo nee ñu dem ña mu gën a tàng nga dem ci kari garab yi mu gën a tàng boo bëggee naan ndox fekk ko muy wàññax ñetti fan yàlla tàngaay ba gën a rek beneen tàngaay ba tuut naa leen noonu nag aw ñu daal di daal ci seen tànku dëkk ngelaw bàyyi ko ca sedd lool ah ñu ne woon ñu waree woon ko dem ci ronam cat ñu dem ci ron ñu doon ñu xootamte góor ak jigéen la ak mag ba kenn desu ñoom ñëpp ñu nekk ci ron ñu doon di xaaj ci nag tànk bi seen tool waaw ñoom ña nga mel ni mosu ñoo dëkk sax ci ñëwee di leen dëkk lañ waaw dañ xala ko rek mooy mbugalam defam niir wa dina la naka moom def mbugal moomu daa ne kanam waaw yow ñu mbugalam defam ñu daal di màggale mbugal bu mag wàcc ci ñoom keroog rek dina fi daal di ka naka ñàkk la ci loole laa tam xalam wama kaan ni kuran solo gën ñu bëri mu ñëwee di way gëm de way na baka naka baram sa la woo moom arasi mu maa ñu na su borom rek mu yaa ji yaram de na ko juróom ñett dafay waaw ña ko jëkkoon yëpp yonent bi yàlla wax dafay wax jëm ci yàlla waaw ñu ñëwee di ko rek waaw lor ko su ko defee yàlla musal ko xalak leen de waaw xurey si dam leen jégg yonent yi ñu ngi leen di wax jëm ci yàlla ñu koy rek di ko lor fa ñoo ñu mujjoon rek fa lañ xala mujj de mujj lañ ko rek way naroon nag moom alquran bi de la tanziilu rabbil aalamiina wasalak yàlla ñu ngi leen di de alquran bi de waaw yàlla ko wàcce ma nga bàyyi ko ci yàlla di wax ñu ngeen di wax yi Muhammad di wax yàlla la rek naka la wàcce andi ci raxas la lañu dañu ko doon kuy jublu ñu dafa wàcce ala xam nga ci xol sa rek yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di takko na ci nga nekk ñeen mu ci wécc way waade ña di saanin ci lamin arab min wadi ko yaaram ubbi mu daal di jidde yàlla wàcce alquran le ci lakk yaaram ndax nga defal ko yaaram yi ci laminu wu fasaar way na naka moom luñ wàcce ni de dañuy dugg di dawal di naan àddina ka dañuy téere way njëkk ñële tawreet waxoon na yonent Yàlla Muhammad dina ñëw daañu wàcc ñoom alquran liñ ji waxoon na ko de awalam yàqu ndax nekkul lawum ñaan leen ayatan li man gam dëggoom an yàlla ma ko xamal xamal ma bani Israël foo dee bani Israël ma foo dee bani Israël yi nangu ne jàngoon nañ ca téere yi njëkk ya ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dina ko yónni Makka lay juddoo dafay gàddaay dem li ne daañu wàcc ci moom alquran sallallahu alayhi wa sallam ci saabaam seet nañ ko ñoom ñu gëmoon waa ak na jàpp yow ci saabaam loolu doy leen noonu la de wala wala sax naa woon donte wàcce woon nañu ko ala baabira jëmee na ci leen lakkat yi fa xaraa tam jàng ko aleen ci ñoom yëpp makka makka noonu la ñu doon ñu ñu ñu jëm di ci moom de te ñoom yàlla tere na leen jagle lakk alquran ñu waaye ci seen lakk la feeñ ci sa ko ñuy lakk wu wax ñu dafa feeñ ci beneen lakk wu dul arab ñoom yaa arab yi daañu wax ne kon duñ ko mën a gëm de waaye léegi wàcc na ci seen lakk amuñ benn lay de te saalika kenn ñu xarfee wedd bi ci jàngal lakkat ba su fekkoon lakkat la ñu yéen ci ñoom naa dam xarte di de kolo di mu ñene sapal la wér ñene na nga xam ne su lakkat jàngoon ci ñoom téere duñ ko gëm ñoom ñuy weddi noonu la yàlla defee ci seen xarit ba tey di yéen suñu jàng yi ñëwuñ ko rek laa yóbbu leen gëm ci ñu mukk xataa raw ba dafa ñu jama yàlla tawa mbugal ma la ñu ma dajee ci ci gëm lu mooy ba dañ gisee mbugal de bayaati yow dina mu dikka leen wax dana ci jette woom te ñoom laa fa xam duñu wax ku dikkam de fayaqoo te danañ wax ba pare xam naa ne ndax ñun dañoo ñu ngi xëy nañu de bés bu bëggoon a wàccee nag daañu wax ne yàlla te yàlla yi xëyu ndax ñu gëm dafa def tàgg na daañu yàkkam ci baax saa naa ci mbugal su ñu naan Muhammad na mbugal mi ñëw léegi yàkkam ci nañ ko wala nga jox ñu sax suñuy bam ñu dem jël jëli ko suñu bopp wóor na mbugal li ñu yàkkam ci noonu dana ñëw de affaire ay des la téema ñu ma tax na am dem yóbbañ nañ leen suñu na aya su ma jaawam topp dikkal leen maakaaro lañ nekkoon yow ak sama yëpp na dana leen ko fi mbugal maa naa ana luy jariñ xanam si ñoom maakaar la nekkoon ñu matoon jariñ ba léegi ba léegi mosu mbugal mi waaw seen yàlla yéexe ay at ba yàgg yàgg mbugal mi dafay ñëw gannaaw ay at mbugal ma ñëw wàcc ci seen kaw bés ba wàccee at yi ñëwee lu mu leen di jariñ dara wa ma alak naa mosu noo alak ñun xarit ñu ñu ñëpp dëkk ilaa la ala la ñeen leen mun si way waare de yàlla mos da alak benn dëkk nag lu ma dana fay wala aji waare waaw ba mu defal daf leen gàntu de ci fraag waa ba ma ko naa nekk nekkul saalime di way koñ de ndax yàlla soxla kon mbinde mi te xam ne amul aji waare kon maa ngi koñ na leen waaye léegi nga xebal na yonent yi gannaaw yonent yi xalamaa yaa ngi si ñooy war a sa tulam di haaye boo waxee nag xamuma ndax nga wax ne yàlla dana la wax ne ñëwoon naa yonent rek kon kon naa ay borom xam-xam de yoo xam ne nag mën ñoo xamal ko leen laaj amul benn lay de ba maa sama solo bi seatiru Quraysh dañoo wax ne dañ seete alquran gis ni alquran fasaa ak ñun balaaxa ñu gis itam ñu ngi nekk leer say yu jëkk yi te dara di ci dañ te yonent mos a jàng téere mos a gën a màgg ma nga juddoo ca diggante ba yooyu nga xam ne mos a gis ba ca teew mos a jëkkee borom xam-xam mos a jëkkee ci julli mu nekk nekk say yu jëkk yi te dara waaw ci biir amu ci ñu ne daal Muhammad mi daal dafa am saytaane su koy waxal xam nga saytaane yi ñoo daa dem ba ca asamaan ñu ngi fa fekk dégg dégg ñu wax ko buxaaba yi buxaaba boo ñu dafa am saytaane su koy waxal ñu ne waykat itam waykat boo ñu dafa am saytaane su koy dicté way moo tax jëli daa wax sama saytaane su koy saytaane su koy sax benn la way ñu ne waykat dafa am saytaane su koy jaxore ñu ne saytaane yi wàcc ci waykat yi ak saytaane yi di wàcc ci buxaaba yi ñoo wàcc ci Muhammad rek ñoo ko jox téere bu mu dindi waaye du du yéen a yàlla li mu wax bu daan dàq loolu de mais au moins que ne sama wàcc bi ci alquran si waaye seetaan de alquran bi de seetaan wàcc wu ko de au moins ndax yéen a ngi jàppale ñu daw ñaare yàlla seetaan yi jàppale ñu si ñoom ñoo ñu jëlee mu mel nii de au moins station a xatal ci ñu ko ñu ne woon tamit ak ñoom damaa fay woon ñu dara ñu naan tamit wala jënd ndax seetaan yi daanañ dem ba ca asamaan juróom-ñaareel de waaye ba yàlla yëkkatee Isa aaye nañ leen ñoom ci asamaan yi féete ko ñu ñëw ci juddoo ñu aaye leen mboolem asamaan yëpp ba ñu yónnee yonent bi nag yàlla faral ay jinn jinn safara yoo xam ne jullit waaw xeetaane si ne ñu fee bëgg a jëm asamaan rek ñoom safara wàll bi wàcc ci moom lakk ko moo tax de xam-xam bu xaaba yi dox ndax ñu leen doon waxal dañ doon fekk ak dégg mën a tiisaa dem xeetaane yi dina tamit su fekkoon mën nañoo dem asamaan ba mënuñoo indi lu mel ni alxuraan léegi nag faa suñu mën a dem asamaan gar ne bàq nañ leen wala sababul jaamu maa laa yàlla yàlla ilaa ne laa xarajan fatakuna ba ngeen nekk neen maa sabini jawa ñu wër ne rek yow ñu nanti nag bul sakkal yàlla bokkaale mukk wa an si tawaalal ma ci rasa ka jege ñaar ga laqal dina ñu di jege ñaar ga dana nga waxaat itam rek ñoom bi ba nu aas ma bari mu tarit na nga leen di tawaat bul sakkal yàlla bokkaale gis nga saytaane yi ñu daa indi xam-xam ci bu xaabalee way tari waykat waxam wax wuti naa wax yonent bi rek waykat waxam mooy tagg ngir yaakaar lu maam bu meree xaste dana tagg nit tey boo lëgee mu xas ko dana xas nit tey boo lëgee mu tagg ko loolu mooy nelaw waykat alxuraan nag moom ci genn fànn la nekk ba mu jógee ba tey mës da sotti xoote jëm ci yàlla rek ak ba njumee ni moom wenn yoon woowu mësu koo sotti kon nag ñu doon wutal li nga xam ne moom la seetaan yi doon wàcc ci waykat yi rek waykat moom dafa doon soxal dana ñëw ci léegi ci laaj yi kon nag yonent bi nga xam ne wax ji mu indi benn fànn la rek mooy woote jëm ci yàlla mosu ko mosu ko jàllee te itam waykat dafay xas nit ci lu nekk ci moom ayibal nit ayibal baayam ayibal maamam ci lu ci lu bon lu baayam defoon wala lu maamam defoon ñu di ko ko xasee xasee moom mi moom mi xasee kat dafay def loolu ay jële ji moom mu di ko ay wala keneen xanaa bon di teew ci boppam loolu loolu wuute naa ñu yonent bi mel moom de yonent moom ci boppam la jëkkee danañ ko raqadom ala ilaan axara yow ci sa bopp yow yonent yow lañ jëkk tere pour sakka yàlla bokkaale tegal ko jëkk ñoom waan ci ansira te kala xarab na te jëkk ñaare yi na nga leen xoo jëm leen ci yoonu jub ñoom ñu jëkk ba noppi soga leen ci jaamar yi xanaa kooku fan la mu wute nag fan la waykat ki nga xam ne dafay xasee nit loo xam ne mu ngi ci moom yéen ci moom ñu ngeen a ñu ngeen di aayaat bokkaale dafa fekk bàyyi na bokkaale de maanaam si lancé la sa kala ñu ne nag ba mu wàccee yéen ci ji bi sëñ bi naa ne ko yàlla digal na ma ne naa waat sama njëkk ñaare waaye yaa ngi ma bàyyi mu tëri naka laay def ba boole leen sëñ bi naa ne ne ko da ngay def ñam rek énu jëwee bu dee gàtt moom yéen ci waaw wàññi waaw ngel ngalam lu neex dal di yónnee ci bañ a aar yëpp wala ñu lay indi nekk ñu koy xalaat yoon taabal ñu def mu di am ñaar kër ñu naan dañu ne ci biir loolu nag ñu jël ne leen ngeen xam ci man su ma leen waxoon ne suba pour makka yi dana fees ak xare ñu ñëw fekk ci makka dañu ko gëm dina ko mën dina natt ci yow aw fen mukk loolu ñu wax ñu gëm ko mais kon nag maa ngi gën a yàlla mu gën a def boo xam ne dana ñëw xaw ma tey jëm yàlla su ma gëmul yàlla ak boo laab daal di jóg ne ba tabban laka yaa Muhammad alayhi salaatu wa ne ko yaa xalaku yow Muhammad ñu la ñu doon wooye ne doo leen tasaaro waaw ñu def leen ko ko jëfal ñu ne leen tasaaro wax ak yàlla wàllte saaro tabal yàlla abi laabi wax abo abo laab de ñu ngi tuddee yonent yi ñoom ci njëkkee yonent yi njëkkee ñu dem na ca ayibal ñoom itam duñ seen bopp ñoom dañ ko ci balaa ñu ne maa ngi faral di leen toll ay kii dañ ko nekk safaat wala jiw maa ngi safaat mu mën a mën a waaye yàlla yonent moom buñ ko mos a wax suñ ko nee suñ nee ko jàpp yàlla ab jiw ñëw maanaam saa yu bëgg lu jiw wala xam nga aboo laa xas na koy dem yàlla tontu ne sax bay la daa di laa wile yonent toog ba guddi ñëw ci jamono bi ko bay di xaaju ay yéen bañ a yaatu ay yéen bañ a am jiw tamit. maa ngi leen di ragaloon mu gën a def boo xamante ne ñoom su fekkee gëmu leen yàlla def def boobu mooy béy jëm yàlla xanaa na xaaj bu baax a def ba wërsëg ba wërsëg ñu ne moo ñu ne xanaa na kaw bu la ñu ne Muhammad ah ñu ne ko nag bu leen waxati waxal boobu ñu ne ko jox bu ne alam ba toog maa ngi saa yi maa ngi saa yi yéen ñu ngi gën a fi léegi ñu ngi seen lool xam ne ñu ngi loolu ku gën a jàpp rek waxtu ñu waxee nag gannaaw ak mbagg sa gannaaw ak wàllu sa li ma ne tabax ak ñaan naa ak topp na mu la ñu ñu koy jënd ci nga xam ne dem nañu nag nga rafetal sa jikko ànd ak ñoom de day naa soxla lépp mooy yéen a ngi lay ñëw sa gàncax gi waxul waxal indi naka man bari wu naa gis ñoom ñaata woon dara ñu def rek su fekkee ni ñoom projet ñoom dañuy aar suñu laaj lañ la yow nee man dañ naa ci jàpp teewul rek ba soxla delloo naa la ci jaajëf naa ci diggóoram wax dëgg yàlla ñu yaram yow say digg yëpp booyal ko jëlee ci yàlla rek ne ci yàlla mi nga xam ne yaraata dana mu gis la dina taxaw mu wax ko ba dana jëm jëm ci julli ba taxaw la sa ak ak soppeeku sa di taxaw a sa rukkoo ko ci jot a jëkki ci saa ji dina jooy julli ñëw waaye xam ne yaa nga nekk ci mbooloom julli ma di julli yàlla ngay gisee ñu ngay gis ñu ngay sàmm waaw taxaw lu ko ak ak soppeeku sa ci saa ji dina jëm jooy julli ñëw yàlla mi nga xam ne moo la xaar day soppi la julli dem julli kër gi mooy ñu gëm yàlla la ñeetal yàlla ñoo mas ñu julli nañ ci yàlla sàmmal na ko ak kanam dale ca Adama ba ci Abdoulaye Aminata yéen far ma su ko gis xanaa ñu gëm yàlla rek ñu waaw ñeetal yàlla ñoo mas ñu ay wàcc gisul yàlla ñi nga xam ne moo la witteewoo noonu jëkk sa tey ba tey ñu ngay sàmm rek ñëw na ko moom moom sàmm mooy aji bi dara mooy aji xam af la xore sa ñu jàng nañ ko bi ba jëlee ñu ñu ñaar Alxuraan saytaan ngay xaw a ci yonent bi ñu ci saytaane sànni ay way ci waykat yi ak ñu saytaane way sànni ak buxaaba ci buxaaba yi wër na aduna nukum ndax solo si ma leen ala man sama sama jëkkër na wàcc ci ak ñu saytaane ci moom ndax du ma leen wax saytaane yoo xam ne muy nan dama solo sama mu wàcce ala kulli afaati de kon mara kon ak ñu ngi di bakkara kon kon ak ñu ngi di bakkara kon dañu jëf jëf ñu wa sakaroo dañ tudd laa kasaram tudd guddi aji bëri te fekk ñoom seen way tudd yàlla dañ koy tudd yàlla wala way bi leen soxlaal wala tudd yàlla wan sakaroo dañ fa yow min baat ma duli moo ci gannaaw ba tooñ ñëf leen te duñ naa ñu kenn xanaa ku leen tooñ ku leen tooñ nag fañ nañoo fayu yàlla na ne laa yuhibbu laahu jaara bi soo ñëw xaw ni illaa man bolim kuñ tooñ nag bu fayoo amul bakkaar yonentu sallallahu alayhi wa sallam amoon na waykat yoo xam ne bu Quraysh xasaa yonent bi ñoom ñooy tontu Quraysh ak Hassan ibn Sabit Hassan yonent daana ko sampal minbar ca jàkka ja naa ko xas leen roo kurse yàlla yow xas leen roo kurse yàlla yow ba xas yi nga leen di xas moo gën a métti ci ñoom kat yi ngeen di jam jamal te baabu kat siddiq moo gën a xam xaskani yaaram yëpp mu waaw tekki sama xaskani ci ñoom nga ngañ te def ñëpp su ko defee Seydina Abubakar moo koy moom mboolem askan yaaram moo ko gënoon a xam su ko defee mu mu tekki askanu yonent bi ñu ngi def ñëpp askan la ko xasida xas leen bañ seet ñu naa jaarun jaarun lam yaqi daanu ma bi qaafata koy si déggee way yéen ñuy way dañ ko rabbe Abubakar sa jëfe kenn ko def moom rek a xam ni ñu askan askan àddina yi wa sa yaaram mu xam naa xam àll si na ñaanee bala moo tooñ nañu ci way katal ñu dul ñoom ay yoon xalabin umus delloo ay yoon xalabin umus delloo waykat danañ ah tooñkat yi ci waykat yi ak tooñkat yi ci ñu dul waykat yi yëpp daañu xam ëllëg ban delluwaay la ñuy dellu de maanaam ci mbugal la ñuy dellu de waaye ngoog yàlla nangu na ko def ñu ca lu mooy ñu gëm yàlla di jëf jëf di ñu day tudd yàlla di bu bëri ci seen way bu fekkee dañuy xasta nag suñu xasta lu mooy ñu fayu gannaaw bu ñu leen tooñee su fekkee ne nag loolu rek la sama intadaa aleykum faaqadu aleykum misli ma tadaa aleykum laay ji jëkk rek la bañ waaye nag koo xam na ne tooñ na la waaw kon tooñ yaa fay de